son son son kooku mooy Ngaaka Blindé yow bu lamb sàjjee mbër ba waaf ca géew ga wane fa doole am na fula jom ak seen bopp fu mu dugg wane fa ma noore lamb ji nag am na kang waaw kang yu mën a bëre lamb ji lamb bële ndax lamb bi mooy lamb king yi ku wax Modou wax Siteu faaw sa xel dem ci ardo Modou day xàcc gëdd di dóor si te boo fële sa tànk aar ko gëm naa ni combat bi du yàgg combat mag la xale bu mag tactique technique ak bi ku ne mën na wadd mais nag tarki ndaala bay fàlla te bandi la waaye moo doy xarañ ci biir géew fat mu juum loola lambu dër la dëkk sida jàmm gën la dëkk Modou xale du ko dëkk waa parcelle couronne bi di tukki dégg naa si tax bu jàppee Modou da koy duma bu eh, ko jàppee da duma dégg naa Modou mu bu jàppee sida da koy duma bu eh, ko jàppee da koy duma ku xam sida mbër kaamil la te du mbërantaan am fit bi ne ci gaynde saay saayu melentaan fi musam ci làmb yëpp si da da leen daan bàyyi faal bi king la bëgg a dégg loolu mooy dëggantaan waaye Modou Lo du tiit du wax du rax du daw xare te du ñeexu ñebbe mbër laaj ko ñi ko rafet bëre juli ngemb ñaari loxo yëppay laaw boo amul visa bu la dóoree tem tem nga dem ci kaw wax dëgg yàlla fàtteeku ci ndox mi bay joxe ginnaaw mooy ndox mi fàtteeku ko. maa ko boo ramaxee da ngay bu yaay paccax ku def rambax dégg paccax am sa yaa sa cob sa lapin si ta am na xadar bëri cinq cinq te noonu la ñemee bu dugusee mu neex buy bàkku dootoo bëgg mu jeex te ñeme ñu ko ëpp lees kuy jàpp jaan di nga ragal a dee Modou Lo king la kenn du ko jam di naan ci claf la génnee lelu liggéey màgg daan loxo beggaaw ba mel ni bu yat ma caam ay tama

dëgg mosoon xeeb ci làmb yëpp si da leen daan Baye Fall ki nga la bëgg a dégg loolu mooy dëggantaan waaye Modou Lo du tiit du wax du raf du daw du ñeexu ñebe mbër laaj ko ñi ko ñamoon daaw xare rafet bëre juli ngemb ñaari loxo yëppay laaw xare amul visa bu la dóoree tem tem nga dem ci kaw jaa ngeen jëf falaw. jaajëf abal ma ma jox Mansour mu nuyoo en ma jox Mansour ba mu nuyoo Aïcha Mansour ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di lay ziar bàyyi la nga nuyoo ak waa àdduna actuellement ñoo ngi en direct sur Sen TV bi ak Jambar News Mansour asalaamualeykum. mais kenn nga ka bilande la ilaha illallah ah? ak Eric Favre TV mais Lamine aca Mansour ñu ngi lay nuyu bu baax a baax bàyyi la ko nuyu waa àdduna waaw ange billahi min asheytani rajim bismillahi rahmani rahim gars yi ak waay. maa ngi nuyu vraiment assistance bi yëpp di nuyu di nuyu les deux champions di nuyu d' abord le roi des arènes Modou di nuyu la Tarkinda Siteu di nuyu supporteru Modou Lo yi ak supporteru Siteu yi maa ngi nuyu bu baax euh, monsieur éric Favre vraiment di ko di kontaane liggéey bi Eric. Euh, on vous félicite d'abord par rapport à l'événement, par rapport au festival que vous venez d'organiser. Et je pense que c'est une très grande réussite que le fait que vous veniez dans notre pays, que vous investissiez votre argent, tous vos moyens pour organiser un festival pour le sport, la culture et la santé. Je pense que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et on vous remercie de nous accueillir dans votre festival afin de pouvoir organiser notre face-to-face aujourd'hui. Vraiment, on vous remercie. De nous aussi, c'est nos partenaire, euh, bu baax a baax a baax ndax ñoom aussi dugg nañ ci làmb ji te dinañ ci jàpp bu baax ni ci Eric duggee ak euh, Meta Power ak yeneen surprise yi nga xamante ne ni dina ñëw après maa ngi nuyu monde entier di nuyu sama mbokku promoteur yi fi teew maa ngi nuyu Modou Baye Fall jamaïcain suñu patron Fallou Ndiaye maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu Ibou Laye ñoom euh, Ousseynou Laye di nuyu les managers an Père Ibrahima Mbaye ñëpp maa nuyu sama ñoom papa père Ndiouga euh, les managers père As Max Mbargane maa ngi nuyu bu baax a baax di nuyu la presse di nuyu les batteurs le service d'ordre di nuyu sama famille en particulier sama papa maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di leen jox rek benn information tey aujourd'hui parce que trophée roi des arènes bi trophée père Bala parce que moom laa fas yéene sargal le 24 novembre incha allah euh, arène nationale trophée père Bala koy def vraiment ndax euh, di ko wan ne amuñu amuñu fayam di nuyu sama yaay di nuyu famille bi yëpp samay sœur euh, waa jàmbaar yëpp maa ngi leen nuyu bu baax a baax di woo les sponsors ne leen événement bi c'est le novembre nañ ñëw ñu liggéey ensemble ci yeneen innovation incha allah pour afin que lamb ji mën a développer di wax ne li yombul lamb gëjoon na place du souvenir làmb bu ñëwaatee place du souvenir tey ñu ñoo fexee làmb mën a dem ci hôtel yu mag yi mooy lan ñu am respe ah, am ah. discipline am fair play surtout surtout. ñun ñëpp ñoo bokk ndey baay. ñaar ñi ñooy mayante xaalis. amul animosité seen biir. affaire benn tàkkusaan la na ñëpp am respect ñu def ko ci ci ci fair play. Ah, di remercier tous nos partenaire maa ngi nuyu waa Sen TV di nuyu Lutte TV Eric Favre TV. TFM euh, waa Jambar News aussi la TFM maa ngi nuyu aussi les membres de de Jambar. Ah. ils n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement ñoom Papa Sow hmm. vraiment mention spéciale ñoom Grand Assane Mamour Thioune ñoom ñëpp Alioune Sarr Serigne Dam Papa Gueye assurance tout le monde Cheikh Ndiaye ñëpp maa ngi leen di nuyu ku lim da ngay juum euh, ba ci kanam incha allah macha allah loolu am na solo buzz pour gagner temps dafa am ay tableau yu rafet rafet yu ñu fi gis jërëjëf bu ngeen ko mënee yéegal ci kaw ñu waxtaan ak waaw dañuy woo Pierre Sonar ginnaaw bu ñu nuyoo mbooloo bi yëpp ñu def benn rappel bu bu ndaw rek mooy làmb am na lu bëri lu ñu ci doon wax mais tey am na lu feeñ ndax fàttaliku leen ni que 2015 la ñu gëj a def fii face to face ci place du souvenir kon tey bu ñu ñëwaatee gouverneur préfet les autorités de la police les sapeurs-pompiers ñëw accompagner ñu pour ñu réussir sa face to face là dañuy gërëm les autorités du pays gërëm jàmbaar production gërëm aussi ñi nga xamante ne ñoom ñoo organiser sa festival la muy Eric Favre c'est quelque chose à magnifier et à souligner làmb ngi jëm ci kanam ñu woo Pierre Sonar nga xamante ni dañuy jàllale vidéo bi nga xamante ne moom la defaree li nga xamante ne mooy poster yi ngeen yu ñaan yi ngeen di gis benn bi ñu koy offrir Modou Lo beneen bi ñu koy offrir Siteu ah ni ñu ko defaree dafa rafet ba Siteu gis naa ko dafa kontaan ba def ko statut macha allah donc Pierre Sonar mu nekk benn artiste bu nekk ci Petite Côte bi. di liggéey lu am solo artiste peintre ñu koy woo vraiment mu def présentation bi ñu dem rapidement après ñu jox kàddu bi Éric Faw. su ma nee yeeg mu gaaw Boez. Pierre Sonar Pierre Sonar waaw. allahu akbar ana Pierre. Eh, lii du dara lii tableau la ah. il est pas là Pierre mu gaaw. wala ñu laaj régie bi ñu defal ñu projection. voilà naka la Pierre.